certificat résidence yi nga xamante ne dañ ko attribué ñi nga xamante ne seen i njoñ et yaakaar naa ni li nga xamante ne moo nekkoon rôle liggéey bi nga xamante ne mooy délégué ak chef de quartier yi mooy maanaam joxe certificat domicile pour en retour boo ñëwee ci mairie ñu jox la certificat résidence loolu bi nga xamante ne mooy procédure boobu respecté wuñ ko jaarul yoon li gën a garaaw ci loolu mooy maanaam euh, madame le maire euh, euh, Mayakor Diouf dafa bàyyi ba nga xamante ne ñi ngi waajal ubbi révision électorale yi mu def li nga xamantene moy manam changement wu ci certificat résidence changement yi mi ngi jito ci domicile yi il a il a elle a fait moy manam elle a donné à tous les chefs de quartier des certificats de domicile nga xamantene avec des choses. te ñun ñi nga xam ko ni domicile yi nga xamantene ne doon joxe résidence euh, chef de quartier dañ dan la daan jox avec des registres yi nga xamantene dañ ko daan enregistré la ñëwaat fekkat ko ci mairie bi nga xamantene moy résidence yi ñuy joxe fi et nous trouvons ça que c'est anormal ce qui se passe ici au niveau de la commune Lolo tax et euh, li nga mettre aussi le préfet et le sous-préfet pour que nous xamni ce qui se passe ici au niveau de la commune ci golfe sud bi nga xamantene révision liste électorale